bijaahi xayri man abaa nag ndigalu monsieur le maire yi ngeen def dafay jéego yu am solo yoo xam ne Touba gépp yéegoon nañ ko waaye rawatina gën nañ ko yëg ndax depuis éclairage Touba ku xam te gëstu dëkk bi dugg ci gox-goxaan yi danga xam ne yokk na ci anam yëpp te bu yokkoo it Touba ci kanam jox na ci rôle boo xam ne ñëpp ci teg seen bët kon loolu su amee maire ngeen ko defal commune ngeen ko defal tax commune yi bari nak waye yakana lu melni ni Touba ci kanam def yu bari amuñu ko kon lolu lu sëñ lu yalla jaglél señ Touba la waye nak ñu ci soñu sun bop du ci soñ ñep ñi nga xamne ñi ngi jël seen alal diko def ci Touba ci kanam ñu xamne seen alal jodi yaq ku na xamne ne Touba mom xar kanam ma sha allah ndax route yi boko xolé muy route principale yep Touba ci kanam japp nañ ci taxaw nañ ci te bu fekkone maire moo war a dox lool mën naa yeex ba population bi mën nañoo euh, ñaxtu kon loolu bu amul Touba ca kanam moo tax loolu mu am maire mi nga xam ne moo jiite commune bi moom it mi ngi leen di sant sant boo xam ne amul fu fu mu yem ndax wax dëgg sagal ngeen ko dëkk bi ndax li leen nit ñi def jox de wax dëgg yàlla ku ne xam na ne fi ngeen koy dugal ñëpp ngay teg seen kilifa yi ci nekk yàlla gën leen a jëme kanam gën a yokk mbooloo mi gën teg mbooloo mi ci yoon musal ci say musal leen ci saytaane bu ndox daal sant nañ sant boo xam ne am na fu ñu tàmbalee waaye amul mangi tudd Abdoulaye Kharma di sous-préfet arrondissement bu Ndam donc mangi ini nuyu serigne bi sëriñ Abibou di nuyu sering Mammo ak serigne murtala Lo mi nga xamni mo fi tewal mairie bu Touba di nuyu mbollem population Touba di len ñaan ñu yeggal ñu nuyo bi ci serigne bu mag ni serigne murtala Mbacké Bachir yalla, yalla yàlla yàggal taxawaayam yalla na may ko gudd fan gu and ak ak Euh, di nuyu mboolem membre Touba ci kanam xam naa ni yéen moom seen organisation bi jafe na ndax lii ngeen di def lépp état la waroon te état ñëpp xam nañu ni mënula def lépp te comme ni ko mun sëriñ Mourta laa waxee léegi rek euh, état dafa am ay ak maire yi dafa am ay procédure loolu yëpp état la parce que maire yi démembrement état la donc bu ngeen jëlee benn organisation bu ñuy wax Touba ci kanam mu mën a jóg nit ñi di dajale seen alal di leen ko jox te am na bés ma dëgg bi ma seet see ci seen siège bi ngeen waxoon kon mën naa ma fàtte waaye da ngeen ni woon devise bi mooy di laat nit ñi lu ñu man te di ko def fu ñu xam yaakaar naa loolu lañ ma waxoon ni mooy devise bi lii nag loolu illustration la ci li ñu waxoon donc di leen gërëm bu baax a baax ci turu état Sénégal parce que li ngeen def nii état bi ngeen ko defal parce que état moom moo am euh, n'est-ce pas ay attribution di ci lépp lu askan di soxla waaye nag kenn ku ne dama koy faral di wax ba nga jóge sa kër am na soxla boo fa bàyyi boo xam ne mënoo ko faj donc état mënu la def lépp donc ngeen seen organisation jógee di jàppale état di jàppale population Touba bi aussi du ñu man lu dul gërëm leen ci sant leen ci di leen wax ni am na yeneen défi yoo xam ne ñoo ñoo ngi xaar waaye amuñu benn nattable te ni défi yooyu incha allah Touba ca kanam dina ko relever au côté de l' état fi may jeexale nag mooy di leen remercier bu baax a baax ci collaboration ak compte rendu yi ngeen ñu defal parce que nit ki boo ko dee defal dara aussi moom war naa yëg li nga koy defal parce que jàpp naa ne li ngeen di def dëgg la ci sëriñ bi ngeen koy def waaye ci état bi aussi ngeen koy def vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla balaa yàgg ñu am yeneen yu ñu inauguré waat yeneen yu ñu recevoir at parce que dëkk bi am na ay soxla yu bare bare bare bare di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu mbokk yi teew yëpp di ko tàmbalee ci si Muntaxa mi nga xam ne mooy xalifa des mourides yàlla na fi yàlla def yàgg fi te wér ba àggale li bëgg la àggale ànd ko ak moom di wax ne rek li waral tey suñu teewaay fii ci barab bi mooy euh, wàcce benn commande boo xam ne defoon nañ ko ci làmp yi ñu baaxoo di ko taxaw ci dëkk bi muy toll si juróomi junni làmp moo nekk conteneur yi ngeen di seen ñu ñëwoon tey ngir wàcce ko ànd ko sëriñ Habib mi nga xam ne mooy suñu jéb suñu kilifa waaye ci teewaayu maire bu Touba ci ki nga xam ne moo jiite éclairage ak ci teewaayu sous-préfet bu ndaam dina sant bu baax a baax te di leen gërëm taxawaay bi di wax ne rek liggéey bi moom Touba Ca Kanam liggéeyu éclairage dafa bokk ci benn liggéey yi mu ngi taxaw ci dëkk bi ci liggéey boo xam ne bokk na ci gën a fës ci corniche bi nga xam ne mooy kër Daara Jolof bi def na fi cinq cinq kilomètres cinq kilomètres cinq cent lépp moo def moo indi poto yi moo indi lamp yi ba mu sëkk bu ñu li jóge ci jumaa jëm ci hôpital bu Cheikh Khadim bi ci boobu bële te toll na ci neuf neuf kilomètres cinq cent quatre kilomètres yi da ko waaye cinq yi moo ko def moom tam ba mu mat comme ni ko defee ci corniche bi ba mu wër hôpital ba ndax li wër corniche bi wala biir corniche bi jàpp naa ne lépp mat na dañu génn corniche bi war ci war a mottali liggéey bi di foofu kon daal noo ngi woo ñëpp rek ñuy xam ne liggéey bi ñu la tëddee li ko mbokk mi waxee léegi rek laaj lu ñu mën def suñu xam mooy suñu devise te ci fas sax ba ba mu sob yàlla waaye ci ndimbalul ñi nga xam ne ñooy taxawee commission boobu te suñ xaarim dañ jiite ko ak ñu yor logistique ak mboolem pàccam gépp rek seen taxawaay ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ak gëm nag mbokki taalibe yëpp wax liggéey bi moom fas nañ yéene mu wéy ba rëkk bi bu amee làmp daal fa làmp ji yàlla incha allah bëgg nañ mu fa te kenn du fay dara ñëpp daal ñu koy defal ci alal ji nga xam moom la murid yi teg suñu loxo dénk ko wóolu mu ci liggéey ci Sëriñ ba dëkk bi mel ni mu war a mel ci wàllu jëm kanam di gën a dëgëral suñu jàppalante ak ñi xam ñoo fi nekk ku mel ne maire bi jàpp ko ci seen seen blaat ka sous-préfecture ak mboolem daayira fi nekk yëpp Hizbut Tarqiyyah Dawratul Rayaahiin bàyyiwul kenn kon daal ñoo ngi tallaat loxo yi di soññaat suñ bopp di soññ mbokk talib yëpp nga xam ne liggéey bi liggéey Sëriñ Tuubaa la lu ci def Sëriñ Tuubaa nga ko defal mu jëm ci mbokk jullit yëpp kon ñoo ngi rafetlu bu baax a baax taxawaay yi ñaan yàlla mu sax te koo def yàgg koo fekke ci njiru sëriñ bi mu xam moo ñu ba fañ bëgg àggal dëkk bi mu àgg fa ba ñëpp am li ñu bëgg wàllu faj wàllu éclairage wàllu jàng ba lépp rek mat incha allah ndax baatu jëm kanam moom mooy loolu lépp daje mooy tax jëm kanam mën a am kon yàlla ñu yàlla defal ñu nga xam ne ñooy jëmal Touba kanam barke Serigne Touba ñoo ngi sant ñëpp gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xanaa mii noonu rek liggéey seen ci dëkk bi ndax dëkk bu leer la ñaan na yàlla tuxal lëndëm indi fi leer loolu moom dafa lii bokk ci ku joxal dëkk rek loolu nii dañuy sant bokk taali bi yëpp rek ñu ngi ko teg solo yow mi xam ne yaa fi nekk maire bi daa ko ci administration bi xam ne moom mooy sous-préfet mooy mel ne ku bëgg liggéey bi la moom kon waa dëkk waa waa Touba Thiaroye rek ñu daal jëndikaa suñu Touba rek lañ la mi nga xam ñooy jox señaat yi ñi xam señaat yi fi la dugg waaw li yàlla wëlu ji wax dëgg yàlla yëpp dañuy làmb yoon waa dëkk bi yëpp rek foo ñu xool rek waa Touba ci xam ñu jéem a jël seen jëf daal waaw Touba ca kanam mi ngi fàttali jullit ñépp rawatina taalibe yi Serigne Touba yi ñu gën a farlu ci dëkku Serigne Touba bi gën a taxaw temm ci saafara jafe-jafe yi dëkk bi ndax lu mën a nekk la lu gox sori sori lu mu ruqi-ruqe lu mu jege-jege si biir Touba Touba ca kanam mi ngi koy bàyyi xel te am yéene saafara seeni jafe-jafe ci kaw nag ñu gën a farlu bu baax ci ñaari téeméer yi di ko soññe ci biir kër yi ci quartier yi ci marché yi ci charrette yi ak oto yi ci mbootaay yi ci daayira yi ci jumaa yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bu wér ci dagg reçu 1000 francs yi wala ci 12000 francs yi ku ko mën sax nag nga di si boole carte membre bi. képp ku bëgg yónnee sa adiya ci Touba ca kanam mën nga télécharger application Touba ca kanam ci Play Store wala Apple Store am na Wave am na Orange mbaa sax sa carte bancaire ak foo mën a nekk ci àdduna bi boo bëggee itam mën nga ko jaaralee ci numéro bi 78 544 33 33 am na Wave. am na orange money lépp ngir tuubaa gën a jëm ca kanam di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool